tey samedi ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique si juróom ak juróom-ñetti test yi ñu def fukk ak benn ñoo si positif muy ñaar yoo xamante ne cas importe la muy kaabu bu jógee bitim réew ak juróom-ñett yoo xamante ne ay cas contact yu ñu doon suivre la ak benn boo xamante ne cas communautaire la mooy cas boo xamante ne xamaguñ fu mu jógee fu mu jëlee jàngoro bi mën wax tam ne tey bésu tey bi juróom-ñaari patient yu hospitalisé woon wér nañu danañ leen génn tout ñu wax ne ñuy hospitalisé seen état de santé am na tan bu baax bu ñuy xayma tey boobu ak léegi téeméer ak fanweeri cas la Sénégal compté am fukk ak juróom-ñett yu su wër bon dëgg mën nañu wax ne tey am na téeméer ak fukk ak ñaar yu nekk hôpital ñu leen di suivre ministère la santé et sociale mu ngi demandé sénégalaises ak sénégalais yépp ñu respecté di xamante ne moom lañ leen digal ci xeexu jàngoro bi nous allons vous lire le communiqué numéro 27 ce samedi 28 mars 2020 le ministère de la santé et de sociale a reçu les examens virologiques suivants Sur 98 tests réalisés, 11 sont revenus positifs. Il s'agit de 2 cas importés, de 8 cas contacts suivis par nos de 1 cas la transmission communautaire. Nous vous informons qu'aujourd'hui, 7 patients hospitalisés ont donc guéris. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 130 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 18 sont guéris. Nous avons donc 112 patients actuellement hospitalisés. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale renouvelle à la population son appel au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Je vous remercie de votre attention.